rajo Siwal FM di nuyu di sant mboolem kuréel Wadduha fu ñu mënta nekk ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sëriñ elage Hadj Modou Cissé di Mara Cissé ah li ñu bëggoo wax lu tuuti la rek ci suñu xew-xew bi nga xam ne ñu ngi koy am le 5. le 4 juillet 2015 ci Timbou, ci Mbour ñu ngi ci wo mbollem soppey kurel Wadduha ñu ngi ci invité mbollem soppey Carrefour ci département de Mbour wa rahmatullah Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñun wa sali ñoo ñew fi tay di sargal ti sëriñ Modou Cissé wax Mara ñun nak ñu ngi dëkk ba sali di déglu émission fu mu tollu muy def ci diina ji lu rafet muy dundal alxuraan Tusur bo déggé ay waxam yépp naan mom di di tax mu toog moy dimbali doomi adama yi defar doomu adama yi ñepp yok ñepp wër ñepp barkel, mom lool dong mooy mébétam lool nak defal ko kenn ñun Nyun yi lako ko defal buñ waxe jabot yi moy jigen ñi ndax ñun ñoo jur ñepp kon bu ñepp yokko ñun ñu yokk bu ñepp wéré ñun ñu wér bu ñepp amé jamm ñun ñu am jamm émission bi ñun lako ko defal ñun jigen yi kon ñu koy sante bu baax diko ko di ñaan yalla mu wéral ko ko xam-xamam te aar ko te lafal ko cat musal ko ci ndok ñun nak di tax ñu gis ci moom ay jikko yu rafet ba bëgg koo invité sargal ko fee ñu dëkk ci sali mooy day nit koo xam ni dafa yaru nit koo xam ni ku bëgg diine bëgg alxuraan bëgg ñëpp mucc comme ni muy wax ñépp wér ñépp yokk loolu mooy mébétam ñun tamit loolu mooy sunu mébét ñun fa ñu dëkk surtout ci Saly boo déggee sali rek sa fit bi day dem danga naan sali la fa nekk baaxul te yàlla xam na ni sali ay nit ñu baax a fa nekk ay imaam ay shérif ay doomi soxna yu baax a nga fa nit ñu baax a nga fa ñu juddoo sali màggee sali yaroo sali kenn yàqu fa waaye ñi fa ñëw ñoo bëgg a changer visage visage sali waaye sali incha allah ku fa ñëw le 4 juillet ci sunu conférence bi nga xam ni sali ay nit yu baax a fa nekk ñu ngi woo ñëpp di gërëm ñëpp mboolem kuy déglu siwal FM di déglu Mara Cissé ñun sopp nañ la képp koo xam ne yaa ngi ci Wadduha Wadduha solidarité bii ñuy wax ñun ñii ñoo ciy jiitu tàllal na ñëpp loxo ñëpp ñëw ñu bëggante fi sabilillah jàppante fi sabilillah ànd dimbali doomi aadama comme ni ko Mara Cissé di waxee ànd di jokkoo fi sabilillah asalaamaaleykum wa rahmatullah baal bu ak bismillahi min shaytan rajim bismillahi euh, sama mbokk yi waxee rek noonu la ñu ngi sant wax dëgg yàlla bi nga xam ne yàlla euh, Mara ñu jóge Saly ñëw fii ci conférence bu ñu ko invité woon ñu tase fa ak moom mu doon nit ku baax di wax ci diine di di ci wax lu baax di xettali nit ñi ci diine ji ainsi suite parce que loolu ku koy def ci diine rek war nañ laa sant donc wax dëgg yàlla ñu koy gërëm di ko sant bu loolu paasee nag ah xanaa wax rek suñu bis bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy ma de conférence boobu ñuy def ci Mbour dëkk ci quartier Saly commune Saly Carrefour sa commune Saly nga xam ne la 4 juillet la comme ni ko soxna Kumba Ka waxe ñu woo ñëpp ñoo xam ne diine ñor na leen te boo gisee nag ñu yëngatu ci conférence boobu te di loo xam ne lépp loo xam ne tàbbee na ci dañ koy delloo ci daara yi nga xam ne dañ koo bëgg a teg foofu defar ko foofu ba nga xam ne xale yi bu ñu jàngee seen heure creuse yooyu ñu nga xam ne jànguñu ñu ñëw jàng ci daara ji bu école tëjee itam naka noonu ñu ñëw jàng ci daara ji te daara ji nag daa am lu mu laaj parce que war nañ koo defar war nañoo wut ay maître yoo xam ne ñuy jàngal suñu xale yi looloo tax ñu ngi ci woo ñëpp lépp lu ci waay man rek na ko ci ñëw def ko te xam ne defalu ko kenn yàlla rek la koy defal

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوك جوليتي بولين او دغي اوتي جي اوتي يالا يوننتي بي لا اوتي جوليتي نيب لا نيغ لين دي نيان يين وا مبور وا سالي كيب كو خامنا داغي نان اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اون لا تي بيس بي nga ñew jappalé ñu nga ñew ñu bokk bëss bi taxawal ko ndax li ñuy oote yàlla rek la yalla goge moñu sak moñu wacce ci kaw suuf ñu mën ko jaam te bërëb bi ñuy def it yalla la pour ndaw ñi mën ci jang mag ñi tamit mën ci jang ndax jang rek ñu war ñang nak wessul mag mën na jang comme ni xale di jangé képp ko xam bëgg nga xam sa diiné na nga ñëw jappalé ñu ci bés ba ndaxam lepp lu ci ruus ci daara lañ koy def ndax ñepp mën ci jang ñu ngi gëreem ñepp di sante ñepp di sante Mara Cissé mi ñi nga ubil nañu buntam won ñu boppam ñu xam ne kooku nitu yàlla la nitu yàlla goo xam ne léppam yàlla rek la lépp lu muy wax lépp lu muy jëf yàlla rek a tax muy def deful ngir gistal deful ngir puukare yàlla rek ko tax a jóg ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.